mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daal leen ak jàmm ci seen émission ànd aar aaru ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ngir troisième numéro bi dañu ñëw ci FONGIP muy fonds de garantie des investissements prioritaires fekk si fii directeur des opérations bi Amadou Diallo ñu tàmbale ci yow nuyu la am mbégte lool euh, sekk ak waxtaan bi ci ànd aar aaru di émission bi plan international ak ONG EMAD jagleel euh, sénégalais yépp rawatina ak ndaw yi nag si Rewmi FM jëm ba tey si xeex mbas mi bisimilah. bisimilah euh, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi. di tàmbali di sant sénégalais yi di leen ne déwéniti yàlla nañ fekkee déwén yu bëre di ci aussi nuyu président Macky Sall Euh, mooy président boo xam ne am na effort yu bëri yu mu def ci mbas mi. di jaali Sénégal aussi ak euh, le président moom ci boppam ci suñu mag yu baax ñu fi jóge ci fan yi euh, di ko métitlu waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xaarale aljanna di aussi féliciter le président de l'EMAD Abdou Khadre Gaye mooy président. boo xam ne mu ngi c'est le président de de de de de EMAD Sénégal euh, ñi ngi koy nuyu di ko jaajëfal ci liggéey bi mu nekk di def euh, ci mbas mi parce que euh, dañu toll foo xam ne tey il faut ñëpp ñu jóg il faut que ñëpp ñu jóg ñu xeex sensibiliser sénégalais donc maa ngi kontaan vraiment ci invitation bi di di ko féliciter encore une fois di féliciter aussi l'accompagnement de notre grand frère Moussa Diakhaté nekk koo xam ne ku baax la euh, am yéene bu mag ci ci ci Sénégal ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mu bëgg yàlla na ko yàlla may et puis xam naa ci question yu ñëw dinañu développer ci sujet yi xool lan la état Sénégal ak FONGIP def ci wàllu mbas mi ak yan lan mooy perspective yoo xam ne war nañ ko mën a euh, liggéeyee ak euh, ONG ci ci wàllu mbas mi jërëjëf Amadou Diallo directeur des opérations bu FONGIP tey euh, moom mooy ganu ànd aar aaru mm. Abdou Khadre Gaye dafa dawoon keroog waaye tey ñëw na président EMAD maa ngi lay nuyu Abdou Khadre di la ziar euh, yow daanaka yaa gan gi waaye dañ ko doon terale démarrer ak moom. tout à fait jërëjëf Fathiam euh, c'est vrai que c'est un plaisir tey ñu ñëw rencontrer suñu frère Amadou Diallo. directeur des opérations bu FONGIP ànd ak Moussa Diakhaté Baba bu plan international waroon ñëw teewee jataay bi euh, euh, wante dafa am euh, gàllankoor mën na am mu dab ñu mais ñu ngi fi rek def liggéey bi ñi dañuy féete fi ñi féete fële donc di la wax jërëjëf di remercier Amadou bu mu nangoo accompagner bu mu nangoo invitation bi mais d'abord avant loolu dafa nangu accompagner programme bi nga xamante ne ñu ngi koy mettre en œuvre parce que xeex bi Sénégal yëpp la concerné te moom il en est conscient te ñu ñëpp dañu war mobiliser wu ci ginnaaw état ci ginnaaw kilifa yi pour ñu xeex mbas mi parce que loolu mooy priorité yi loolu la ñu war a jiital loolu moo ëpp importance donc Fathiam vraiment merci aussi à mi et à Fathiam maa ngi euh, bàyyi xel ñoom benn ñoom Bemba vraiment ak directeur voilà ñoom ñëpp vraiment jàpp nañu ci mbir mi def ko seen yëf te loolu moo ñu

jërëjëf Abdou Khadre Gaye président EMAD moom ngeen doon dégg noonu euh, kon euh, ñu ngi fi aussi ak euh, Moussa Diakhaté moom itam bokk ci EMAD tey nag mu toog fii en tant que membre EMAD toogu fi ak casquette politique bi ku xam Moussa xam ko ci bokk gis-gis mooy porte parole bi kon Moussa yooyu itam ñu lay nuyu de rafet lu sa engagement xamewuma la woon facette bi macha allah donc ñu rafetlu sa engagement aussi ci lépp lu soxal communauté bi ndax ni ko Abdou Khadre waxee xeexu ñëpp la parce que mucc ci mbas ñi bisimilah. la Fatou ma lay sant di la gërëm ci invitation bi di am problème lool di wax ci kenn ki bokk ci ñi ñu mooñ xëy na ci bokk gis nga ñu xam. waaye li indi bokk gis-gis mooy tàbbal bi ñu tàbbil ci emat jox ñu meññeentalu bëgg sa réew ba mu jur politique bi tey may toog ak nag koo xam ni muy la président Abdou Khadre bokk ci su may sëriñ ci wàll wàllu nekkinu àddina. kon dina jafe ma wax ci kanamam ndax mosta kontaan ci samay wax saa yu ne il est très rigoureux waaye dama ci jàpp rek ni daa bëgg ma raw samay maas waaye di wax ni bésu tay bii day day firndeel rek encore une fois liggéey bi emat yàgg di def maanaam développement saa su ne li nag dugguleet ndax avant mbas mi ñu ngi woon ci tuberculose bi mm-hmm. ñu ngi woon ci paludisme bi ñu ngi woon ci former ndaw ñi waajal leen ñu ngi woon ci suqaliwaat sunu aada dellu ci suñuy cosaan suñuy cëslaay kon lii dafa bi mu ñëwee nag lañ tege ngum lépp jël lii yenu ko bëgg andi une réponse communautaire moo tax fu ñu jàpp ni ndaw a nga fa wala nit ku baax a nga fa ñu fexe ba li ñuy wax topp ci sa nopp ndax yow nga doon lantinoor boo xam ne di nga ko àggale ci aska wi mm-hmm. moo tax tey ñu seet si ndaw sa ndaw boo xam ni Sénégal war nañ ko bàyyi xel naam yëngu ci politique waaye dafa làmbooy jikkooy emat mm-hmm. maanaam ànd ak nàmpatal ko ci diine ak cosaan aada ba pare nag bokk ci ndaw ñi raw ndax en mille Amadou jàll mii moo nekkoon meilleur élève du Sénégal prix général moo ko jëloon ci maths ak science physique yàlla def mu amoon bourse jàngi dellusiwaat ci réew mi président woolu woon ko muy ndaw defoon ko conseil spécial à la conseil technique à la présidence mu bokkoon ci pôle des grands projets daan ci liggéey tey yàlla def mu ngi FONGIP jotoon nekk na directeur des risques tey moo yor directeur des exploitations bu FONGIP yàlla def itam muy ndaw lu yëngu ci politique ci fii ci Ziguinchor ci Ziguinchor ak fii ci Kër Massar nekk leader ba pare donte loolu itam jël EMAD programme EMAD ak plan international di aar aarlu bëgg ko jëmbët ci fépp fu muy romb ak i mbokkam ak i xameelam ngir feebar bi ku nekk jàppandoo ji mu mën a ñol kon mu mel ni EMAD daal ci li mu nekk ànd aar aarlu képp ku ci nekk da nga sauver sauver say mbokk kon ñu ci woo Sénégal yépp ñu agsi nga jéggal ma bu kàddu gu leerul masque bi ñu ma forcé te mu koy takk saa su ne la ndax emat ku fa ne ak ci loo ne dangay ngay takk d'abord masque leer na fi mu ne kay ñëppay takk masque euh, yaakaar naa ne aussi loolu dafa bokk ci li EMAD di fexe jëmbat ci ñëpp ndax masque bi doonte du la aar à 100 cent waaye dana wàññi xëy na risque yi nga xamante ni mooy am bu ñu ci boolee respecté yeneen gest barrières yi parce que y a pas que le masque. kon Abdou Khad ni ñu ko baaxoo. merci Moussa ci présentation bi ñeel Amadou Diallo yaakaar naa sax Abdou Khad mënoon nañ bàyyi Moussa rek tey mu def émission bi macha allah euh, mais ni ñu ko baaxoo def rek tous les jours. tour dañ lay bàyyi nga présenter Moussa projet bi xëy na Amadou xëy na Moussa aussi du ñàkk lu mu ci doon lii Baba si wax nga ko bu plan international xëy na mu dab ñu balaa ñuy jeexal. Mm-hmm. ndax mu ngi ci yeneen yoo xam ne aussi euh, ci cadre liggéey bi la ba tey. Mm-hmm. kon ñu bàyyi la nga ñëw ak Amadou ci projet bi. defe naa defe naa sax du gudd parce que déjà moom présenté nañ ko projet bi. Mm-hmm. xam na ko bu baax xëy na auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu bi mooy ñetteelu émission bi donc ñu tënk ko rek. Euh, bi mbir mi euh, dalee ci kaw àddina jaaxal àddina yépp nga xamante ne li nga xamante ne moo ci bees mooy ne ràññeewul ki am kàttan économiquement ak ku amul kàttan économiquement xàmmewul riche xàmmewul pauvre xàmmewul pays développé xàmmewul pays pauvre dafa ñëw dal ci kaw àddina àddina bi nekk une une une bi ba nga xamante ne je dirais que c'est la plus démocratique entre guillemets des pandémies parce que tuberculose mu ngi fi mais tey dañ ko yaakaar ci réew yu pauvre yi ci biir réew yi néew doole yi ñu yaakaar ko ci couche nga xamante ne ñoom la seen doole gën a suufee paludisme noonu yeneen jàngoro noonu wante bii dafa nekk gan gu bees gu ñu peegagul xamaguñu jikkoom xamaguñu melokaanam xamaguñu lu koy faj mu jaaxal ñëpp donc su ñëwee dal ci réew mu mel ni Sénégal dinañu tiit amoon na ay euh, prédiction yu defoon ne bés bu dalee ci Afrique dina fi def ravage ba nga xamante ne kenn xamu ko li mu defagum déjà ravage la waaw li mu defagum déjà ravage parce que euh, liy dal di faagaagal doomu aadama mënoo ko natt du point de vue statistique ndaxte un mort dix morts n'est pas plus dix fois plus important qu'une personne qui meurt euh, boroom xam-xam bi nee ne ndaw lu am lu ko naqari ba mu tuur rangooñam ci ay souffrance yi muy dund rek rangooñ boobu kenn mënu ko mesurer kenn mënu ko quantifier kenn mënu ko valoriser ne rangooñ bii nii la wala nee la ndax souffrance ci boppam ak ak ak jeexitu xol ak méttit yooyu nga xamante ne mooy dal doomu aadama suñu warugar ñun nit ci nañuy organiser suñuy société mooy xool ba naka lañ koy wàññi au maximum am na ku ko waxoon ne je n'aurai jamais la paix tant que seul homme sur la terre dira j'ai j'ai soif on peut ajouter je suis malade je suis seul je suis abandonné donc suñu rôle ñun ak état mooy fexe ba mbir mi daal daj ba ñëpp nekk ci nu mu gën a neexee donc su boobaa dañu jug ñun ak suñu partenaire bu mel ni plan international ñu ne leen ñu toog ndax bi mbir mi dalee ci saa si rek dañu ne yeneen programme yëpp nañ leen taxawal parce que wàll bi dafa gaaw te xam xamuñu naka la mënoo jël ay relais communautaire ñuy dugg ci kër yi di sensibiliser kon nañ arrêté relais yi ñëpp toog ñu ne donc ñun nañ xool naka lañuy ñuy def ñu waxtaan ak ñoom ñu nangu mettre en place un fonds bu ñuy permettre ñu démarrer un programme de résilience communautaire ñu tuddee ko ànd aar aaru programme boobu nag tegu ci gis-gis gis-gis ba nga xamante ne mooy balaa ngaa mën a moytu mbir da koy xam nañu jël ay ndaw ci ay gox ñu former leen jox leen xam-xam bu dinañu xam mbir mi mooy lan ak naka lañ koy moytoo parce que soo leen nit ki takkal masque kese moom mu takkee masque bi sax mën na indi gàllankoor ndaxte du ko xam raxasal sa loxo kese mën na raxasu raxasu ba nga xamante ne xëy na du mel na mu war a mel donc ñu tàggat ndaw ñooñu ndaw ñi war a dellu ci biir ménage yi waxtaan ak borom kër yu góor yi ak yu jigéen yi jox leen ay jumtuwaay pour ñu xool naka. lu daal peege feebar bi ba mu wàññeeku naam wàññeekuwul dafa yokk parce que changement des comportement mooy la nga xamante ne moo gën a jafe ci li ñuy def nit ki su cëram laggee ci la mu tàmm même inconsciemment dina ko def te du ko xam donc moo tax yombul nañ xam ne liggéey la bu xóot bu yàgg bu tar bu metti bu sax mën a jeexal sa xol mën a tax nga mer bu foog ne nit ñi dañoo dof wala dañoo ñàkk fayda fekkante ne mer waruñu li ñu war rek mooy un bon père de famille un bon citoyen ñu continue di wax di yenn xam ne xëy na bés dina ñëw nit ñi dañ soppi jikko yi fu mu nekk nag nag bët yaa ngi commencé ubbeeku programme boobu ñu ngi tànn région de Dakar ci biir région de Dakar ñu tànn 60 quartiers quartier bu nekk ñu tàggat fa fukki nit muy 600 relais communautaire qui ont été formés quartier bu nekk ñu tànn fa 75 ménage muy mille cinq 4500 ménages qui seront touchés ménage bu nekk ñu jox la benn kit hygiénique ba nga xamante ne lave mais la complet plus cinq savons plus cinq masques plus eau de javel naam bëriwul naam du dara wante dañu xalaat ne xeex bu mel nii su amee ci askan ku nekk indil la nga am ak yéene bu rafet su yàlla barkeelee ñu fédéré loolu yëpp mën na jur résultat en cours de route nag ñun ni ñuy liggéeyee. du ñu ne képp ku ñu gis sa loxo set ni ku Moussa Diakhaté waxee rek nañ la boole ci mbir mi ñu dajeek Amadou waxtaan ak moom gis ne nag Covid bi dafay gàllankoor wér-gu-yaramu askan bi mais économiquement aussi dafa am impact bu metti bu muy am ci kaw askan bi impact ba nga xamante ne sax lu ci gën a dangereux ci impact boobu mooy nit ki su koom-koomam wàññeekoo pour mu soppi ay jikkoom pour mu topp recommandation yi day gën a metti ñu ne chef de l'État xalaat na ak gouvernement Sénégal ne dañuy mettre en place un fonds de résilience économique ñu ne alhamdulilah rabbil alamin donc on va faire en sorte que la balance soit bien équilibrée ñuy sensibiliser nit ñi mais ñu waxtaan ak ñoom ci seen koom-koom dooleel leen pour que ñu mën a antal seen bopp loolu je pense que c'est une très bonne chose euh, moo tax ñu ne naka la ñuy lëngoo ànd et on a commencé à réfléchir sur une convention tripartite entre euh, FONGIP EMAD ak plan international su amee sax yeneen kuréel yu mën ñëw bokk ci pour que ensemble ñu ëmb loolu laal ko déjà j'en ai parlé au grand serigne de Dakar Abdoulaye Diop Matar donc qui est un partenaire d'importance donc euh, dans ce projet bu ñuy def lancement bi moo ñëw lancé ko ànd ak euh, madame le maire de la ville de Dakar Soham Wardini qui est marraine ànd ak euh, honorable député Guirassi qui est parrain donc pour dire que dañu bëgg le maximum de Sénégalais autour de cette ambition pour que ñu buute feebar bi mu génn réew mi génn àddina bi ci tënk directeur loolu mooy projet bi nga xamante ne moom la ñu tuddee trois a ànd aar aaru ndax gëm nañ ne suñu àndee mu bañ a am boddikonte bañ a am considération politique ou politicienne bañ a am considération d'appartenance religieuse confrérique ñu ànd rek en tant que sénégalais en tant que être humain dina baax loolu mais suñu àndee lan la ñuy def dañuy aar askan wi jiital ci ndaw ñi jiital ci jigéen ñi aar kilifa yi aar mag ñi nga xamante ne ñoo gën vulnérable mais ñun ñi nga xamante ne ñoo ànd pour aar foog ñu aar suñu bopp itam parce que foog mu matale su amee kenn ci Sénégal ku respecté wul les consignes mën na réduire au néant tout l'effort que nous sommes en de faire benn élève ci biir benn école bu am 3000 élèves bu respecté wul règle yi mën na euh, fragiliser donc euh, école boobu ba feebar bi dugg fa exposé ko donc vraiment nañ ànd aar aaru di remercier plan international di remercier la collectivité Lébou le grand serigne de Dakar et tous les dignitaires euh, de Dakar di remercier l'État du Sénégal et la ville de Dakar et tous les partenaires merci jërëjëf Abdou Khadre Gaye président EMAD ci euh, xëy na présentation bi ak aussi li mu ci njàmbaas yëpp muy lu am solo xëy na bala ñu yegg si ci Amadou euh, Moussa lay dellu ndax euh, gis nañu aussi président ak ministre de l' intérieur jël annoncé ay mesures yoo xam ne dafa jëm ci soññiwaat ndaw ñi surtout parce que mag ñi mën na amaana demuñu dikkuñu ña nga toog waaye ndaw ñi ñooy génn ñoo nekk en activité. bu bëccëgee bu nu bàyyeekoo ngoon ca kër ya la ñuy ñibbi fekk fa mag ña euh, donc buñ leen joxee feebar bi aussi dañ leen di lor Moussa en tant que ndaw xëy na ci wàll woowu nga yokk sensibilisation bi au nom de EMAD ndax xam naa ne bàyyeeku boobu euh, ça ne laisse indifférent ñëpp constaté nañ ko te gis nañu aussi conséquences yi mu jur te pareegul ba tey ndax gis nañu mag ñu baax ñi ñu fi ñàkk jamono yi ñu ci bëri mbas mi laal leen te loolu yëpp mun nañu ne xëy na ndaw yi am nañu ci responsabilité donc au nom de l'EMAD Moussa ci bàyyeeku bi ak nouvelles mesures yi ñu annoncé. waaw di diw fàttali ndaw ñi rek ni leen ëllëgu réew mi teyu réew mi ci seen loxo lañuy nekk ndax réew mu la gën ndaw yu wér moo la ëpp ëllëg waaye ndaw yi kese sëñ bi da ko doon wax defe naa maam Babacar Sy la daje boo xam ne ndaw yi kese la wóorul daje boo xam ne mag yi kese la wóorul te mbir yi toll bu mag ñi demut bu gale yi génne bu ñëwee ñoo koy andi kon mu baax lool itam. ñoom ñu dellu siwaat ci xeex bi di leen wax ni yoon wi amaat xal muy nawetaan corona parce que ñun dañ ko tàmbali. Mm-hmm. ñu ngi ci gox yi nekk lañu léegi ñu ngi formé ay ndaw mm-hmm. tànneef lañ def ci biir tànneef yi xale yi tànn ndaw tànn yi mag waajal leen pour ñu sensibiliser ndaw ñi di wax ndaw ñi rek ni leen combat bi ñoo ci war a jiitu summi nag beneen malaan bu dul malaanu citoyen pour un changement de comportement respect mesures barrières yi pour ñu aar suñu bopp aar suñuy njaboot aar suñu réew waaye na fekk ñun ñu njëkk aaru ba pare ndax su fekkee ni da ngay dem te soloo masque su fekkee ni da ngay wax itam te raxasoo say loxo wala dandantewu leen mën naa am itam la nga bëgg xeex mu bañ kon daal ci turu EMAD ci turu ndawu emat ci turu kilifay emat ci turu plan international ñu ngi woo ndaw Sénégal jamono yi daan na fekk ñu ngi ci terrain yi di entraîné woog di waajal nawetaan énergie boobu ñu doon am ngella na ko ku nekk am sa quartier ku nekk am ko sa kër ku nekk am sa gox su ko defee buñ boolee doole yi dinañ ànd aar aar comme ni ko Emad waxee. te surtout ñu bàyyi xel ne booy aar keneen en réalité aaroo ko sa bopp ngay aar. Mhm. parce que kooku <laughs> bu ko dalee day ñëw ci yow ndax ni nga ko virus bi gaaw na sew na sew goo xam ne mhm. bàyyiwul kenn. Mhm. te donc euh, booy protéger keneen xamal ne sa bopp ngay ngay aar donc ñun li ñuy def nii nañu jàpp ni aussi suñu bopp lañ koy defal. ndax ci oto yi moom ngay dajal ci marché yi su koo ko bàyyee xel yow itam nga bàyyi xel ku nekk aaru foog naa ne yàlla mun naa def ñu mucc ci mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, Amadou euh, tey yow yaay gan gi gannaaw bi ñu la présenté projet bi ak jubluwaay bi euh, xëy na bala ñuy ñëw ci taxawaayu FONGIP dëgg-dëgg sax yow gis-gis bi nga am ci EMAD ba waral xëy na ngeen niser ànd liggéey ci ça veut que am na foo xam ne fa ngeen di dajee muy benn point de convergence waaw jërëjëf dëggulu naa soo dëgguluwee président Abdou Khad li mu wax dangay xam que liggéey bu mu nekk di def liggéey bu am solo la mbas mi fu ñu toll nii tey ci Sénégal euh, je pense que c'est la meilleure démarche te li may ñaan yàlla na autorité yi dëgguñu ba président de la République en tout cas man puisque ndawam la dinaa ko bindal document jëbbal ko ko parce que li liggéey bu muy def nii démarche communautaire bu ñuy wax ni moom mooy solution bi aujourd'hui donc dañ toll foo xam ne mbas bi installé wu na même soo xoolee ci réew réew bitim réew am na dëkk yoo xam ne dañu ne woon mbas bi jeex na mais ñëwaat na aux États-Unis dëmb c'était quarante mille cas par jour donc ça veut dire que mbas mi lu lu loo xam ne la nit ñi ñoo ko ñoo ko war a xeex du affaire état du affaire président affaire de citoyen la te ñoom lu ñuy def nii démarche communautaire bi c'est la solution la plus pertinente vraiment maa ngi leen di féliciter di leen gërëm di ñaan yàlla na autorité yi dëgg leen pour ñu def ci moyen ñu gën a former les relais communautaires ñu gën a sensibiliser nit ñi ci les gestes barrières ndaw yi aussi je pense que Moussa wax na ko il faut ñu dellu si ci ci ci ci ci wax leen ci wax leen parce que dañu foog feebar bi amul conséquence ci ndaw yi rek loolu moo tax ñu bàyyeeku waruñu bàyyeeku parce que spécialistes yi sax ñu ngi koy wax xamuñu lan mooy conséquence à long terme ci feebar bi ci ndaw yi parce que ndaw nga tey euh, c'est vrai tu résistant feebar bi mënu la daaneel mais dans cinq ans dix ans xamuñu lu muy def sa yaram donc c'est important que ndaw yi ñi gën leen sensibiliser plage yi ñi moytu ko regroupement yi ñi moytu ko et cetera sénégalais yi jël seen matuwaay parce que loolu mooy mën a tax ñu wàññi mbas bi parce que amaguñu garab xamuñu kañ la ñuy am garab pour mbas bi donc c'est important vraiment président sa démarche bi c'est la meilleure démarche dugg ci gox goxaan yi ñi ngi lay xaar nag Ziguinchor di la xaar aussi Kër Massar dam la koy wax parce que waxoon naa la ko ci m'as promis il faut ñu dem parce que il faut que partout fu nu mënu dem rek ñi dem pour sensibiliser nit ñi loolu mooy mun a tax les gestes barrières ñu arrêté léegi nag li ma rafetlu ci démarche bi pour ñu ñëw seet ma ma adhéré rapidement c'est parce que au-delà de la démarche communautaire sanitaire am na démarche économique boo xam ne état Sénégal def na ko dañ ko war a vulgariser euh, acteurs économique yi dañu impacté wu soo xoolee menuisier bi euh, tailleur bi jaaykatu lekk yi restaurant hôtel yi am ñu bëri bàyyiwul kenn ça fait 3 4 mois biir Sénégal kenn liggéeyu mm-hmm. donc c'est extrêmement difficile loolu moo tax état Sénégal teg benn fonds 200 milliards boo xam ne dañ ko jagleel les acteurs économiques mais puisque ñoom les ONG ils sont elles sont en contact avec les acteurs économiques parce que dañuy dem sensibiliser dugg ci quartier yi mm-hmm. donc loolu moo tax c'est très pertinent ñi waxtaan ak ñoom xool ban plan lañu mën a teg ensemble pour que ñoom suñu suñ leen former seen relais yi suñ leen former ci wàllu euh, mbas mi ñi former leen aussi ci produit yoo xam ne yooyu la état Sénégal teg pour financer acteurs yoo xam ne ils sont impactés donc ci discussion yooyu lañ nekk je pense que c'est une démarche nouvelle d'ailleurs soo xoolee d'une manière générale état l'État a toujours eu un problème pour diffuser Euh, vulgariser les produits yi ñuy def pour population yi mm. ci structures yi yëpp ah du financement rek mais ci yeneen structures yi aussi soo demee ay ANIDA nga dem ay PRODAC nga dem ANPEJ nga dem DER donc toujours nit ñi soo leen laajee dina dinañu xam programme bi mais du mm. duñu xam produit donc suñu amee ay ONG comme EMAD nga xam ñi ngi en contact avec les acteurs ñu former leen ci produit yooyu ñoom dinañ ko mën a expliquer acteurs yi wax leen nu ñuy fexe ba jot ci produit yooyu donc loolu moo tax vraiment je trouve que la démarche est salutaire dinañ ànd ak ñoom man dinaa continuer appuyer programme bi dinañ ko remonter au plus haut niveau pour que ñu mun a finaliser pour que enfin ñu mun a former Euh, euh, les acteurs ci ci ci en tout cas les les les relais communautaires ñu former leen pour ñu mën a diffuser information yi parce que tey ku soxla trésorerie yi soo ñëwee dinañ fexe ñu jox la xaalis nga mën a redémarrer sa sa sa sa sa activité. parce que xam nga entreprise yu ndaw yi ñu toogee trois mois 4 mois liggéeyuñu économie bu ñu amoon déjà lekk nañ ko. Mm-hmm. amatuñu xaalis pour demaat jënd seeni produit pour redémarrer seen activité hmm. par exemple koo xam ne restaurant la yor il faut mu jëndaat ay produit pour toggaat donc du ko am su ñëwee dinañ ko fexe ak banque yi ñu fonds yi jox ko garantie ñu jox ko fonds de roulement mu mun a jëndaat ay bagages mu liggéeyaat hmm. donc loolu ñaan nañ waa ay mat vraiment ñu mënul mën a def relais bi hmm. donc euh, maa ngi lay gërëm président di la sant di ñaaxaat encore sénégalais yi nanu fexe daal ñu sensibiliser ñi ñi président wax na ko la ci conseil des ministres bu paase bi ci jeunesse bi surtout nañ leen pousser waat vraiment ñu jëlaat seen matuwaay ñu dugg ci population yi euh, pour ñu sensibiliser leen parce que mbas mi su continuer nii dina daaneel réew mi complètement alors am na solo fi ma bëgg a euh, insister surtout mooy euh, ci par exemple euh, tailleur bi yor atelier wam wala menuisier bi xam nga soo waxee banque wala nga wax état rek gars yi dañuy ragal loolu moom c'est c'est purement sénégalais soo ne banque déjà ñu ngi xalaat ay intérêt ñu ngi xalaat xëy na buñ ma lebalee du ma am garantie bu doy donc taxawaayu FONGIP dëgg dëgg dëgg. ci ñooñu ma la limal muy menuisier bi wala euh, ki nga xam ne tailleur la wala ku demee noonu lan la. ci mbas waaw taxawaay bi dëgg-dëgg ci mbas mi mooy euh, xam nga comme noo ko waxee souvent acteur économique yi yu ndaw yi ñooñu noonu suñu soxlayee financement comme noo ko waxee souvent dañ leen di laaj garantie. duñ ko am donc suñu demee ay difficulté la mais produit bu bees bu ñu teg nii. dañ lay financer ñin ñoo lay garantir directement ci mbas mi donc soxlawloo beneen garanti mm. loolu déjà dindi nañ ko euh, ci ci financement yi am na ñaari type de financement am na financement boo xam ne pour banques yi la boobu mooy acteur yoo xam ne xaw na nu am doole tuuti donc noonu dañuy jaar ci banque bi wax banque bi dama soxla financement banque bi évaluer ñaata nga soxla ci wàllu lu ñuy ne trésorerie maanaam ñaata nga soxla pour fay sa nit ñi ñaata nga soxla pour jënd say matière première ñaata nga soxla pour euh, fay say courant sa loyer et cetera ñu tënk loolu ñu yóndee ko banque bi financé la ñun ñi garantir sa ça c'est la première catégorie léegi catégorie booy wax ni mooy catégorie bu ndaw bi mm. noonu dañuy ñëw FONGIP directement ñu defaral leen évaluation xool seen dossier par exemple tailleur yi souvent commencé nañ ko def problème bu ñuy am mooy seen loyer fayuñu ko seen courant fayuñu ko xam nga ñooñu lu ñu soxla taxul rëy noonu mm. ba 5 millions 2 millions cinq millions ba 10 millions maximum mm. ñu defaral la sa dossier état bi dafa jël 5 milliards jox ñu ko ñun ñi tas ko ci banque yu ndaw yi donc ñu jël sa dossier yóbbu ko ci banque yu ndaw yooyu mm. gars yi financé la sans dara voilà mooy mutuelle yi exactement mm. les mutuelles d'épargne et de crédit microfinance banque yu ndaw yi foofu la ñuy yóbbu sa dossier nga ubbi sa compte am na nag apport de cinq pour cent loolu ni ngay discuter ak état bi xool parce que nit ñi dañu sonn ah. mais am na apport de cinq pour cent taux bi aussi xam nga avant mbas bi taux d'intérêt yi ci mutuelle yi soo xoolee ay douze quinze parfois day dem ba dix huit pour cent mais fii financement bii nii maximum tu as sept pour cent donc c' entre cinq et sept pour cent te doo joxe benn garantie donc apport de cinq pour cent bi rek lañ la laaj ñun ñooy jël dossier bi jëbbal ko euh, banque bu ndaw bi ñu financer la nga redémarrer sa activité donc produit ñaari produit yooyu teg nañ ko produit pour informel bi mooy acteurs yu ndaw yi ak produit pour acteurs yu mag yi ñooñu ci banque yi la ñuy jaar donc loolu lañ jot a def euh, te école privée yi aussi souvent ñi ngi jooytu ñoom tamit sont éligibles pour mu wax ko ñu dëgg ko euh, menuisiers yi sont éligibles artisans yi d'une manière générale ils sont éligibles donc il y dacteur yoo xam ne tey ñu ngi leen di accompagner donc de léegi loolu moo tax mais nag nit ñi ñëpp xamuñu ko Euh, donc looloo tax c'est important Euh, ñu lëkkaloo ak EMAD waxtaan ak ñoom pour ñu gën a diffuser information mhm. beneen laaj xëy na xam naa ñàkkul am na ku ñuy déglu bëgg ko laaj li li gars yi di ragal aussi mooy dañuy am difficulté pour fay même en temps normal après tamit muy juraat yeneen jafe-jafe temps mbas mi nag moom dafay gën a metti ndax rien ne dit bu ngeen financé nit ki sax ay mbiram dina dox parce que ña daan ñaw ñawlu ñu ñu bari talatuñu ñawlu xëy na ña daan defarlu yeneen ak yeneen talatuñ ko ki ngeen jàppale dafa war a rembourser. bu amee jafe-jafe xëy na liggéey bi doxul aussi moom lan moo koy xaar ci seen diggante ak moom. question bu am solo la parce que c' est déjà pris en compte maanaam tey suñ la financé ñin xam nañu période bi c' est pas évident activité yi redémarrer donc loolu moo tax am na lu ñuy ne différé donc tey ci produit boobu di nga toog at balaa ngay commencer rembourser. six mois ba at mais la plupart at la ñuy def parce que xam na deux mille 2020 moom jeex na. Hmm. ci 2020 bi ça va être difficile donc 2021 ngay commencer rembourser. yaakaar ne balaa boobu virus bi dina dem waaye looloo tax nag vraiment liggéey. ñu war xeex ñu war a xeex sénégalais yi war a jóg. pour que mbas mi jóge fi rapidement hmm. parce que sinon toujours dañuy am difficulté donc am na lu ñuy ne différé de au moins de six à un an mais la plupart un an lañ lay may. donc nga am temps souffler redémarrer say activité pour nga mën a euh, euh, rembourser am na aussi loo xam ne daf nañ ko c'est-à-dire que banques yi tey su nekkee yow da nga amoon crédit avant mbas mi mën nga dem nga waxtaan ak sa banque kooku il faut aussi ñu wax ko acteurs yi sa banque amul droit mu bañ donc su nekkoon munoo munatoo rembourser da ngay laaj lu ñuy ne report maanaam ñu pousse remboursement bi ba 6 mois banque bi war na ko mën a def parce que dañ ko xaatim teg ko état Sénégal ak BCEAO maanaam mooy kuréel buy saytu banque yi buy réglementer banque yi dañ ko teg loolu mooy report d'échéance donc loolu tamit am na ni wax ko acteur yi mun nga dem gis sa banque waxtaan ñi baal la ak diir boo xam ne di nga commencé waat rembourser sa crédit boo amoon avant euh, mbas bi mais après mbas bi daal ci produit bu bees bi am na lu ñuy ne diffère un an boo xam ne mën nga toog avant ngay commencer rembourser donc loolu mooy régler problème am na solo Abdou Khadre bu fekkee peut am na loo bëgg a dolli. Euh, ci li li euh, Amadou wax. waaw euh, en fait li ci dal xel mooy xeex dafay dafay matale sooy xeex mbir da koy song ci ci anam yëpp su fekkonte ne réew mi dafa jug rek ne xaaral ñu xeex feebar bi pour mu bañ a law feebar bi mën na bañ a law. mais dina jur beneen mbas. ba nga xamante ne bu gën a metti feebar bi parce que dina jur feebaru xiif. parce que li koy jur mooy économie bu daanu bu rës bu màbb bu doxatul te loolu sax dina tax xëy na feebar bi. adversaire la booy puus bu mu sori nga foog ne pare nga ci moom sànq bi directeur di introduire wax na ko am na dëkk yu foogoon ne. jeex na tey ñu ngi yuuxuwaat sa secours parce que c'est un adversaire terrible qu'on ne connaît pas donc su fekkente ne tey jii. ñu ngi xeex ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi xeex ci wàllu prévention mais en même temps ñu ñu double ko ak xeex aussi ci wàllu économie dafay am solo am na yeneen dimension yu xeex bi am bi ñuy def suñu cérémonie lancement bi le député Guirassy il avait parlé de la dimension spirituelle de la pandémie bon moom mën na ko wax parce que bokk na ci sénégalais yu mbir mi njëkk dal seen kaw ñu ñu ñu tërëf gis aussi daal ba mu leen dal stigmatisation yi muy jur walla même euh, euh, euh des remises en cause fondamentales ci croyance yi nga xamante ne moom la nit ki am ak gis-gis bi mu gis àddina euh, cette crise va changer le monde la perception que nous avons de la perception que nous la de la solidarité du partage lépp mooy changer sànq wax naa la ne que répété nga ko su fekkente ne ñëpp aaru nañu mu am kenn ku aaruwul dafa mel ni kenn aaruwul su fekkente ne mbas mi génn nañ ko ci dëkk yëpp mu am dëkk bi mu génnul dafa mel ni mbas mi mu ngi fi ba tey donc cette perception la cette solidarité internationale cette solidarité nationale dafay gën a renversé wu mais cette cette diversité aussi de la réponse donc lii dafay dal xel su fekkente ne aussi te niir nañu compte nit ki ngay financer tout de suite bu xëy na su ñu nekkoon en situation normale mu mun a rembourser dans des conditions normales nous sommes en situation de Covid te xamuñu sax naka lay demee yàlla na fi jógee. yàlla na fi jógee mais qui envisage une solution que lii dina sorti tout de il faut aussi envisager le pire c'est ça la lucidité waaw tey jii sénégalais yaa ngi taxaw di wax na voilà dañuy julli ji pourquoi ñuy tëj jàkk ji pourquoi ñuy def lii mais attends àddina dina toll fa nga xamante ne jàkk dina tëj ba ñuy bombardé Dakar ah jarul sax nit ñi ñoo dematul parce que am na lu nekk condition yu ñuy war a remplir pour mu mën a nekk wér-gu-yaram sainteté d'esprit sainteté morale disponibilité yooyu yëpp état la war ak ñun ñu war ko xeex moo tax lii dafay dal xel et je pense que un euh, partenaire comme Plan International bi ma leen sifflé idée bi mais le directeur keroog à la cérémonie vous avez entendu ce qu'il a dit il a tout suite vu que c'est ça parce que même sans état ONG commencé nañu xalaat ne l' après Covid. xam nga après dévaluation avec ENDA on avait lancé l' opération Siggi ndax dafa mel ni dévaluation bi daf ñu sëngeem loolu ñu ñu a baissé les on a baissé la tête l' opération Siggi redressons la tête malgré la dévaluation nous pouvons nous en sortir à tous les niveaux. commencé na sax. mën na sax gi nga am na crise yi nga xamante ne ça peut même. remettre en cause la foi de la personne humaine am na benn livre se Sembène Ousmane bi wax ne ñooñu ils étaient tombés dans l'athéisme ils étaient dans un navire mais lorsque le navire a commencé à sombrer la foi est revenue par la force dans le cœur des humains ñoom ñëpp ils se sont prosternés pour prier le Dieu de Mohammed et le Dieu de Jésus-Christ fu mu nekk nii Sénégalais yi gëmaguñ ko mais gis nga ampleur bi mbir mi commencé génn les gens commencent à se parce que kilifa yi ñooy dem dama gën a gëm dama euh, sëñ Malick Pape Malick si ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram ci gàmmu ci dem bële mu ne Abdou Khader jikko yu rafet yaa ngi ñibbi mais mag ñaa ngi ñibbi parce que faaleetuñu leen mais bi ma gisee hécatombe bi pour def temps yi je dis kilifa yaa ngi dem mag ñaa ngi dem loolu ban impact lay am ci dëkk bi. kooku beneen réflexion la ba nga xamante ne war nañ ci commencer réfléchir si l'élite une certaine élite disparaît de façon aussi massive quel impact ça aura tey sàmb la tey demb la <laughs> ginnaaw suba paate la ginnaaw suba keneen keneen la donc moo tax ñu war a gaaw war a taxaw ci riposte bi pour vraiment stopper la progression de la pandémie sinon vaincre ko mais je suis satisfait de tout ce que le directeur a di on va essayer de voir comment mettre en œuvre nu mu gën a rafetee ba ñu toucher cible bi et c'est ça l'objectif toucher la cible véritablement dañu waxtaan keroog ma ne ko attends directeur am na beneen mbir bu am le marché Sandaga va être délocalisé ça aura un impact certain sur des familles entières du quartier il des gens qui s'étaient organisés des familles en donc def di di def pension ñi di jaay bisaab ñi di jaay jus parce que le marché dafay créer benn effet de mhm. et cetera maintenant si on délocalise de marché si on arrête les activités du marché pendant deux ans pour reconstruction et tout que vont devenir ces ménages que vont devenir ces familles qui vivaient du marché ci période bi donc loolu yëpp ñun dinañ ci réfléchir ensemble pour xool naka lay demee mu ngi doon wax aussi si euh, Kër Massar ak Ziguinchor je crois que maa ngi nuyu la jaraaf de Kër Massar jaraaf Aldo waxtaan naa ak moom téléphone dafa waroon ñëw mais dafa am ngàdd dafa am malade bu mu war a seeti moo tax ñëwul mais dinañu programmer benn visite incha allah chez lui autour d'une émission mais avant ñuy dem ci moom foog ñu jaar ci kilifa gu mag gi muy grand am Abdoulaye Makhtar moom si dañ ko programmer dem fa et je pense que jonction boobu yéen ñaar dina am benn impact bu mu am ci ci d'autant plus que euh, mairie bi sax ñu ngi commencé di ñu oo ne dañu bëgg ñu def intervention et tout mais on va réfléchir sur tout ça bon Ziguinchor on va voir ndaxte du point pour kii bi euh, lutte contre la TB defe naa plan international moo fa nekk su ñu defee partenariat bi réfléchir avec le gouverne euh, le directeur parce que tey conférence de presse ministre de l'intérieur di jox en fonction de directives ak orientation yu bees yi muy joxe on va voir ban orientation la ñu war jox su suñu riposte est-ce que lii c'était la première phase daanaka day jeex suñu évaluer dina am deuxième phase ba nga xamante ne mën nañu yaatal éventail bi yaatal euh, euh, zone d' intervention yi ak mode d' intervention yi en ce moment dinañ mën toucher aussi bien Kër Massar que Ziguinchor parce que fédéré suñuy doole ku nekk fa nga ëpp doole nga dem fa pour def fa action moom mooy tax ñu am résultat bi daal. am na solo alors Moussa euh, sa gis-gis ci aspect économique bi nga xam ni FONGIP moom la taxawee euh, ci ndaw ñi yaa ngi ci dëkk bi gis nga ne secteur informel bi moom daf leen a laal bu baax a baax euh, kon ñooñu aussi buñ leen di jàppale yaakaar naa ne dañuy fekk ci EMAD mi nga xam ne seen liggéey itam développement bokk na ci ak suqali nit ñi donte aada ak cosaan peut-être la leen ñenn ñi xamee mm-hmm. mais suqali ko également di développement bokk na ci seen taxawaay. effectivement euh, li ngay li jara bàyyi xel mooy nii il faut ñu koy wax et ça c'est tous les gouvernements souvent structure yu mel nii dañuy privilégier toujours souvent ñi ànd ak ñoom wala ñu yor carte parti bi mm-hmm. situation mbas mi tax na ci li ma gisagum boobu maa ngi gis ni ñu ngi tëb par parloo gi mm-hmm. parce que balaa nga naan naam ne fa mm-hmm. balaa ngay tal par parloo ah. ànd ak sago ah. fi yi sago yëpp dem ba tax na xeex bi ñuy xeex te bàyyiwuñ ci kenn boole ci ñëpp looloo tax ma am yaqin ni yoon wi om emaat xàll mm. bu ci fond ji bëgg ñi mu ni aawee du am par parloo dañuy dem ci ki ko soxla mm-hmm. te ñaare aussi parce que emaat ña fa nekk euh, politique guñu bokkuñ ci parti politique donc seen féete mm. mooy ki soxla te taxaw mm-hmm. kon gëm naa ne buñ jaaree ci ñu mel ni ñooñu boddante bi wala par parloo bi danañ ko moytu ba ki ko soxla dëggantaan mm. mën koo jot ndax ñaari programme yu mel nii donte état am na yéene ju rafet ñiy dox ci diggante bi ñaaree ñoo ñooy détourner objectif yi. ba tax na ca kam war a yegg du fa yegg. mais gëm naa ni lëkkaloo bii FONGIP def ci xalaatu ñoom monsieur Diallo ak Emad dana tax bu boobaa itam mu gën a ñol njëriñ rek juddu ci parce que itam nag euh, xeex bi moom. Euh, metti na ñu ngi ci laaj nay moyen waaye itam plan économique bi lu jar a xalaat la ndax su suñu wéree ba pare. foog ñu delluwaat ci liggéey bi moo tax may rafetlu taxawaayu ku mel nii Amadou Diallo di yëg ni Emma da ngi fa rek moom mu dem gëstu xool immédiatement jéem a créer maintenant link entre seeni structure ak le mouvement communautaire pour aussi ñu xalaat après Covid lu am solo. am na solo na fi ma doon bëgg ñëw ak yow Amadou. Euh, sànq maa ngi lay wax ne bokk na ci li ñuy ragal peut-être garantie yi ak euh, bu ñu yéexee fay ak yooyu mais leneen li tax aussi sénégalais yi découragé ci yenn projet yi mooy dañuy jàpp ne si politique seeni gars yi lañ koy jox seeni militants ñoo siy jot ak yooyu donc peut-être ànd bi ngeen ànd ak EMAD mën na dalal xelu ñenn ñi ndax yaakaar naa ne intérêt wu état mooy économie bu suqali ko ndax tailleur ba bu ay mbiram doxee peut-être boppam lay liggéey mais état dina ko yëg keneen ak keneen aussi su ay mbiram doxee état dina ko yëg parce que dina tax dootul soxla yenn yi ci état dana mënal boppam dana indépendant yi tout donc peut-être boo mënee aussi rassurer sénégalais yi ci côté boobu euh, ànd ak EMAD bi xëy na dina indi tuuti transparence ak xel mu dal ci ñi doon ragal politique rax ci. d'accord d'accord waaw wax nañ dëgg ah, souvent am na crainte boobu mais je pense que bon euh, affaire yu bëri ñu ngi changer mm. et que. voilà le président Macky Sall li muy joxe comme instruction ci lañu nekk di wéy maanaam nekkal fi sénégalais yi euh, nekk le le le voilà au de au dessus des partis politiques euh, la patrie avant le parti c'est des choses yoo xam ne dafa dëggu ci moom dëggu ci doxalinam euh, soo xoolee mbas mi bu mu ñëwee ba tey toutes les actions qui ont été faites c'est des actions yoo xam ne. sénégalais yëpp lañ ci dugal euh, même ci distribution ceeb bi soo xoolee du parti la ko jox du gouvernement dafa jox armée bi ak gendarmerie loolu yëpp pour wone que démarche bi mooy c'est une démarche inclusive sénégalais yëpp dañ ci war a gis seen bopp donc le FONGIP a toujours été comme ça Euh, euh, di démarche bi mooy c'est les vrais acteurs économiques ñooñu la ñu bëgg a toucher. dem ak EMAD c'est une un de transparence d'ailleurs FONGIP soo xoolee résultat yu mu def yëpp daf koy publier euh, ci site webam bi mën nga dem xool. kan ak kan ñoo am financement donc c'est la transparence parce que ci loolu lañ loolu lañ gëm loolu lañ gëm ci loolu la ñuy dox donc war naa mën a rassurer sénégalais que képp koo xam ne bëgg nga financement ci mbas mi parce que tu es impacté mën nga jaar FONGIP dinañ la toppatoo dinañ xool sa dossier mën nga aussi dem directement gis sa banque waxtaan ak moom ne ko ah man dama soxla financement parce que je suis impacté pour maam am garantie FONGIP mën nañ la toppatoo kii et cetera donc je rassure encore une fois les acteurs ñaax leen nag euh, euh, ñi farlu defar seen dossier Euh, mën a justifier aussi parce que loolu la. xam nga voilà foofu laa doon nar a ñëw critère euh, d'éligibilité yi. critères yi ndax su dul loolu tamit Fatia mën na jóge fee ñëw. bëgg financement rek ne la dama impacté. voilà yan critères ngeen di sukkandiku. pour pour que tamit ñoom EMAD suñu demee. ñuy mën a jiital information boobu si ñoom. critères yi seen impacté maanaam yow soo amoon activité il faut nga mën a justifier. que que sa activité sa chiffre d'affaires maanaam loo doon di def ci activité wàññeeku na. Euh, soo jëlee euh, lu ñuy laaj en général c'est autour de 30 pour cent cest dire que sa activité wàññeeku na de 30 pour cent soo doon di def euh, cent voilà tu es à 70 donc 30 pour cent yëpp perte nga ko donc dafa am solo. nga mën a justifier loolu te loolu c'est simple en général bon xam nañu aussi ñu impacté parce que su nekkee da nga yor restaurant xam na nañu le fait que ñu def confinement le fait que benn instant ñu tëj euh, euh, euh, économie bi ñooñu les les transporteurs aussi xam nañu ils sont impactés les écoles privées xam nañu donc en général sax acteurs yi suñu ñëwee na nga mun justifier daal yor nga sa activité mm. am nga say kayit au moins quand même soo amul say kayit aussi dinañ la accompagner ci mbas mi ça aussi c'est une des euh, important une des parties importantes mooy dinañ la accompagner pour nga formaliser wu parce que aussi c'est très très important mm-hmm. euh, xaalis bu ñuy jël nii di ko jagleel réew mi en réalité cotisation sénégalais la mooy mm. ñoo xam ne dañu fay seen taxe donc c'est important que acteurs yi aussi ñu sensibiliser leen ci loolu ñu wut ay kayit mais je rassure tout le monde que c'est transparent ku ñëw dinañ toppatoo sa dossier euh, dinañu xool est-ce que tu es impacté si dinañ la jox lu lu la war mm-hmm. donc euh, loolu laa ci mën a wax daal mm-hmm. euh, ci tànk yooyu la président sant ci loolu lañ nekk et je pense que il a vraiment joxe na yoon bi joxe na vision bi euh, uti yaa ngi fi soo xoolee ay FONGIP ay FONSIS ay DER dañ ko créer avant mbas bi mm. donc ça veut dire que amoon na xalaat euh, lan mooy suqali économie xamoon na yoon bi lan la yàlla def ñaanuñu koon mais mbas bi toll fii donc c' est des outils importants yoo xam ne euh, ñu ngi ciy liggéey et puis ñu ngi wax acteurs yi daal nanu ñëw ñu seet ñu ñun dinañ leen accompagner incha allah. wax nga ko léegi euh, mbas mi dafay régler problème informel bi nga xam ne moo nekkoon ci ci ci secteur bi ndax euh, boo formaliser woo xëy na mën naa tax ngay jéem ngay teel a jot si financement yi ak mm-hmm. yooyu mais su fekkente ni yow amoo dara luy jëmmal li nga nekk euh, jot ci euh, ndimbalu état dafay daal di jafe mais Moussa wax na sànq Abdou ba la may ñëwaat si yow nekkoon nga directeur des risques su ma juumulee alors mbas mi Abdou Khad wax na ko Moussa wax na ko mais du doy bu ñu taxawulee dëgg dëgg dëgg ci xeex ko risque yi nga gis ci wàllu koom-koom ak surtout secteur privé bi fan la ñu ko mën a nat parce que parfois da ngay am yaakaar ne nit ñi mesurer wuñu en fait euh, fi yëf yi mën a yegg ak jafe-jafe yi nga xam ni mun na ko jóg donc si wàllu koom-koom tey bu ñuy natt déjà njeexital bi si si koom bi ak surtout ëllëg fekkee amuñu taxawaay bi war ci wàllu geste barrière yi ñu respecté ko yooyu ci lan la ñu mën a yóbbu parce que bu ñu deful noonu yaakaar naa ne mën na dem ba yéen ñiy dimbale sax dootu leen amati doole bu ngeen dimbalee non commencé nañu mesurer impact bi ah xam nañu chiffres yi par exemple soo xoolee secteur tourisme hôtellerie c'est plus de presque cent milliards la ñu perte ci deux mille vingt bi. tourisme <laughs> hôtellerie rek c'est cinquante milliards la ñu perte cinquante milliards c'est c'est c'est énorme donc soo xoolee euh, en termes de d'activité ñi ngi jógee ci 7 pour cent en croissance aujourd'hui presque ñu ngi ci zéro donc. feebar bi impact bi mu àndi mooy économie bi dafa taxaw dafa taxaw touriste gisatoo fi ay touriste gisu gis transport doxul dara doxul donc les risques sont énormes risques yi mooy économie bi day daan dañuy dem ba état du mën a fay fonctionnaire dañuy dem ba du mën a faju parce que xaalis ba la ñuy collecté ci ah, économie bi boobu la ñuy jël defar ay yoon mm-hmm. xaalis boobu la ñuy jël defar suñuy hôpitaux xaalis boobu la ñuy jël euh, da fay suñuy professeurs yu jàngal élèves yi et donc ça veut dire que tey suñu xeexul mbas mi ba économie bi ñu mun ko soxali dañuy dem ba lu ñuy lekk sax duñ ko am donc c'est très important que sénégalais yi comprendre loolu te je pense que nit ñi comme président nu ko waxee commencé nañ ko gis euh, lu ma ci yokk rek mooy aussi c'est une opportunité quand même ñaanuñu koon yàlla mais mbas mi dafa war a doon Euh, euh, euh, opportunité pour que sénégalais ñi booloo déjà aussi ñi xoolaat réorienter suñu priorité et je pense que présent ci loolu la nekk di liggéey actuellement le plan de relance pour que su ñu ñoñal suñu yeneen secteurs yi maanaam la santé y a un plan ambitieux de relance sur la santé parce que gis nañu que léegi ak mbas mi ñëpp tëj nañu seen frontière donc même kilifa yu doon di dem Europe di faju <laughs> fii la ñuy toog ñu faju donc ça veut dire que tout le monde a intérêt ñu liggéey ci wàllu suñu secteur santé ñu defaraat suñu plateau médical bi soxlaatuñu dem bitim réew jóge foofu aussi suñu secteur éducation chaque année dañu noon di am ay fuite de cerveau ñun yëpp suñu genre yi dañu dem jàng Europe ñëwaat donc war nañ mën a togga defaraat suñu secteur éducation de telle sorte que kenn soxlaatul dem France pour jàngi les recherche la recherche parce que loolu moo yor réew recherche ñu développer suñu secteur de recherche pour que dans dans l'artisanat ñu mën a ñooñal artisan yi agriculture bi aussi donc y a des secteurs clés yoo xam ne tey plan de relance bi ci loolu la nag di liggéey mooy secteur santé éducation ak agriculture agriculture surtout c'est essentiel parce que loolu mooy mën a tax ñu mën a béy lu ñuy lekk tey kenn du demaat à l'étranger andi lekk lu Sénégalais yi gën a produit yoo xam ne fii lañ koy defee enfin la transformation l'industrie donc président euh, euh, soo xoolee ci yooyu la jox ndigal pour que gouvernement bi xalaat ci euh, pour que vraiment suñu économie ñu profitoo ci mën a produire localement transformer localement consommer localement parce que ça crée des emplois donc c'est une opportunité mm. loolu moo tax nit ñi nañu farlu vraiment ñi fexe ñi dàq mbas mi fii parce que on a de sérieux euh, euh, problèmes suñu continuer nii même en Europe en France tey maa ngi doon di waxtaan ak ay spécialistes soo xoolee le nombre de chômeurs euh, c'est ça explose ils sont à 2 3 millions 5 millions aux États-Unis en 3 4 mois c'est 20 millions de chômeurs donc dañu war a xam que c'est extrêmement dangereux cette maladie là ñu ngi vraiment gërëm EMAD ne yàlla na autorité yi dëgg leen en tout cas man damay jël engagement bind parce que loolu lañu am ay conseillers lañu bind autorité yi pour que cette démarche communautaire ñi gën ko ñoñal euh, ñi gën a ko law eh, ci gox-goxaan yi pour que ñi ñi jël seen matuwaay sol leen maski yi euh, ngir yàlla na ñi ñi sol maski yi nanu raxas seen loxo jafewul euh, te acteur boo xam ne am nga doole ni ngi lay ñaan soo mënee jël ay mas may ko sénégalais yi aussi nga def ko parce que état bi mu ngi ciy def ay jéego mais doyul nañu woo ñëpp ku nekk mu ñu am démarche pour que vraiment ñu arrêté feebar bi. Abdou Khadre kon ñu jàpp ne EMAD euh, malgré que mi ngi woon ci xeex bi et tout mais dafay jëlaat beneen yoon muy yoonu koom-koom bi ndax wax nga sànq solo suqali nit ñi euh, ci wàllu koom ak euh, xëy na bu fekkee na leneen loo ci bëgg dugg ci yoon bi du tax nga bàyyi yoon bële. waaw ndax yëpp ah. yëppay demandoo waaw yëppay demandoo donc mais si opportunité bi nga xamante ne feebar bi doon na ko. laa bugg a ñëw il a parfaitement raison gis nga doomu aadama yi suñu génnee yoon bi nga xamante ne moom la leen yàlla wala ñu buggul wax yàlla sax ndax gëmuñu ko ndax am ñu ko gëmu nañ ko tuddee nature bi rëddal suñ ko bàyyee daf leen fay delloo par force dafay woñ seen loxo yàlla day woñ loxo doomu aadama nii xalifatullahi fii ardi pour que na mu war taxawee mu taxawee ko par force moom la woykat bi ne soo amee looy bañ ku la ëpp doole la ko tegul te ki ëpp doole ñëpp mooy yàlla humanité bi ñoo sàggan ba bëtt la couche d'ozone donc mën nga ne bëtt asamaan xotti ko daaneel àll bi yëpp awatul àll ci àddina bi lépp économie bi lekk ko c'est comme un monstre froid qui dévore les bienfaits de pour l'humanité mais dem nañu ba àgg fa nga xamante ne nag mais trop c'est trop il faut que la nature intervienne pour remettre l'homme à l'ordre c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité <laughs> eh, mais moo tax li ñu gis-gis nañ ko am na Covid bi dafa dem quelque temps rek gars yi ne y a même des des forêts qui sont en train de repousser la couche d'ozone même am na des et cetera beaucoup de problèmes écologiques yu nit ki teg àddina bi mu ngi delluwaat foofu mais est-ce que dina yeewu suffisamment au Sénégal qu'est-ce qu'on a vu on avait dit ñuy def ba pouvoir beeg opposition bi yëpp retrouvé wu mais Covid bi forcé na leen ci tout le monde s'est retrouvé au palais autour du chef de l'État bon am na ñu ciy critiqué am na ñu ciy critiqué mais je pense que suñu doxee tuuti on sera obligé par la force mu neex ñu mu naqari ñu de nous mettre ensemble pour nous sauver ah. il s'agit de sauver l'humanité donc États-Unis mu neex ko mu naqari dafay tàllal loxo ñeneen ñi l'Europe, l'Europe, etc. Il faut qu'on se mette ensemble. Soigner à l'échelle du Sénégal aussi, il faut que les gens, euh, le parti, la patrie avant le parti. Mm -hmm. C'était un vœu pieux. am na fa nga xam ne su ñu fa tollee day nekk une obligation. une porte de secours. et on sera obligé de nous de nous mettre ensemble pour travailler donc opportunité boobu donc euh, c'est le destin c'est Dieu qui nous a ouvert cette voie donc j'espère que nous ne serons pas. aussi bête de ne pas emprunter cette porte qui est la porte du salut pour l'humanité, pour tous les pays de l'humanité, pour toutes les races, pour toutes les religions, pour toutes les confréries pour nit taxawaat taxawaayam ba war ci àddina bi am na solo Abdou Khad dugal nañu am ci dimension spirituelle bi ndax moom tamit sëriñ la macha allah <laughs> euh, dugal nañu ci dimension boobu muy muy aussi lu am solo ndax loolu bokk na yaakaar naa ci liy dooleel aussi nit ñi ci wàllu xel parce que lépp ci xel la. Mm-hmm. donc bu ñu gisee yeneen xëy na mbir yi nga xam ne Covid bi ñëw na réglé ko dina tax ñu gën a am lucidité. Mm-hmm. Euh, ci xeex parce que panique aussi baaxul ci dara. bu ñu paniqué rek dañuy jaxasoo euh, mm-hmm. kenn du xamati looy def ak yooyu te mën naa doon loo xam day day day yokk jafe-jafe. On dit que la, la, la maladie, c'est un signal que la nature envoie à l'être humain pour qu'il aille se soigner sa bëñ su méttee daf la signaler na am na lu fa ne soo réglé wul problème boobu mu dem mais gis nañu nit ku dem ba amatul sensibilité sa feebar dugg la di lekk sa yaram te yëgoo ko la douleur est signal très fort pour l'humanité donc le Covid c'est un adversaire mais aussi c'est quelque part hein, un allié, un adversaire parce qu'il nous fait mal, un adversaire parce qu'il nous rend malade, mais un allié parce qu'il nous réveille, qu'il nous alerte pour qu'on change d'orientation. ci profité mm-hmm. nañu jeexal ak yow euh, daal di tëj waxtaan bi. bala ñuy dellu si ci gan gi moom mu def conclusion am. fi may tëjee rek mooy fi kilifa gi ñëw man dama koy recentrer sur l'homme mm-hmm. feebar bi ñi doon wax ngand lañ ponkal les États-Unis la Chine ña ko foogoon la nërmeel wala ni ngand benn la mooy yàlla suñu borom ñun itam ci suñu doxalin demoon nañ ba jël sëriñ ba koo teg ci place yeneen wala ci place yàlla il dit ni fii yàlla rek fi nekk mm-hmm. maanaam feebar bi daf ñu woowaat pour ñu dellu sur les fondamentaux xoolaat jikko yi déggoon nga li fi xew ci jikko yi yàqu xaaxu jikko yi dégg nga nit ñi fi ñu tegoon alal teg ko àddina yi mu delloo suñu nen lu dul yàlla neen la voilà lu dul yàlla neen la donc pour man jàngat la bu baax confinement bi bari na ci ñu delluwaat ci seen diine ak ah, xaw a beruwaat delluwaat ci yàlla nañ defaraat jikko yi xoolaat toogin yi pour le dire comme Abdou Khadre un changement de comportement véritable c'est la seule voie de salut pour que ñu moomaat suñu bopp naam métti na lool mais c'est un nouveau départ pour l'Afrique ndax tey ñëpp tëj seen frontière le génie sénégalais man xaw moo ni Sénégal mën na defar masque mm-hmm. il a fallu mas mi boo demee fu mel ne jënd caaray kaw ñu dajale ay tailleur jox leen esprit boobu nag laa bëgg ñu xool lii ñuy lekk nañ dellu suñu nguru ban bi bu ceeb amatul jël suñu dugg bi di ko defal pour moom ce réflexe là doit pousser à aller vers le national ñu aiguillonner le génie sénégalais pour ñu def un développement endogène à partir de nos vraies valeurs pour parler comme le président Abdou Valérie am na solo lool ci EMAD li koy firndeel mooy euh, ñu ngi dooree euh, waxtaan yëpp ci ay kilifa diine. ak ñoo xam ne xëy na danañ dem ci ñoom ñuy ay kilifa aada. day borom xalaat yu rafet yoo xam ne danañu delloo nit ñi ci yàlla mais delloo leen aussi ci comportement bi nga xam ne moom la nit war am. Hmm. parce que lii du ay euh, mbirum santé moo koy faj parce que bu doon loolu ñu ñu ëpp plateau médicaux yu baax. ñoom dinañ ci génn. Hmm. mais dafa làmboo yeneen facettes yoo xam ni heureusement EMAD Abdou bàyyi nañ ci. xel muy wàllu diine ak yeneen ak yeneen yoo xam ne diggante nit ak moroomam ndax tey bopp sa bopp gi demoon na bay dominer àdduna ku nekk sa bopp ngay lijjante waaye tey bu ma nekkee ak Abdou Khad di ko fréquenté bu Abdou Khad takkul masque damay insisté pour mu takk masque parce que bu exposé boppam mag may exposé waale donc solidarité boobu ak euh, lépp luy euh, aspect positif ci mbas mi ñu ngi ñaan yàlla ñëpp gis ko parce que buñ ko gisee am taxawaay bi war rek mën nañu cee génn ñu ngi lay gërëm di gërëm Moussa Diakhaté euh, bàyyi gan gi xëy na li ñu dese ci simili mu daal di tëj Amadou Diallo. waaw jërëjëf maa ngi déjà remercier le président Abdou Khad pour son accueil sa grandeur c'est un intellectuel un éminent intellectuel euh, dañu soxla lii nañ soxla soo xoolee Moussa feneen la far man feneen laa far moom mm-hmm. emat la nekk ki daje fi waxtaan mbiru Sénégal waxtaan donc li mbas mi moo ko àndi te mm. comportement yi lañu soxla pour que borom xam-xam yi ak borom baax yi comme ñoom Moussa ñi toog waxtaan dade trouver ay solution pour Sénégalais yi pour l'Afrique et le monde entier d'une manière générale donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci ci initiative yi di encore lancer un appel pour les jeunes pour leur dire que seeni responsabilité s'est engagée ñun ndaw yi ñun ñoo war a jóg xeex mbas mi mu jóge fi ñu mu ñu ñoo war a jóg xeex pour que Sénégal mu jëm kanam Afrique jëm kanam euh, di terminer par euh, encourager le gouvernement du Sénégal et à sa tête le président Macky Sall di leen ne euh, euh, di leen félicité ci liggéey bu ñu nekk di def xam naa jombul jafe na mais Sénégal yëpp dañu war a daje waxtaan ànd ak président sur ce problème là pour ñuy régler ko gëm naa ni kii euh, borom diine yi borom baax yi suñu mag yi aussi ñu leen di ñaan ñu yokk ñaan yi parce que mbiru yàlla la te dinañu fexe daal en tout cas te ñun jeunes yi ñu def ci suñu suñu suñu warugal donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu aussi les auditeurs ñoom yëpp di leen gërëm di leen sant di leen ne wax bi su amee lu ci ñaaw ñu ngi ci jégalu di la féliciter yow tamit sa liggéey macha allah yombut ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale ci loo nekk di def euh, te xam naa à très bientôt incha allah. jërëjëf jërëjëf kon mu nekkoon Amadou jàlloo directeur des opérations bu FONGIP di fonds de garantie des investissements prioritaires euh, kon euh, EMAD ak plan international seet si woon ko tey fas yéene tamit ànd ak ñoom. indi beneen aspect bu bees ci xeex bi ñu sumboon muy aspect économique bi parce que am na solo Abdou Khadre Gaye njiital EMAD la ci àndaloon tey ak Moussa Diakhaté moom itam bokk ci EMAD di yëngu ci wàllu communication bi euh, surtout euh, Fatou Thiam Ngom fare woon ci kàddu gi ñu amoon mbégte lool ànd ak yéen ci troisième numéro bi di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee ba tey mbas mi ak euh, keneen ci réew mi FM ñu ngi leen di ñaanal kenn dal ak jàmm